lan nga nu mën a wax euh, ci mouvement bi kañ ngeen ko créé xam nañ ni que jàppale Amadou Ba moo leen tax a jóg mais lan nga ñu ci mën a yokkal. Mm. bon mouvement bi d'abord muy tudd RSE c'est-à-dire que nekkul RSE Amadou Ba 2024 donc le Amadou Ba 2024 loolu day fédérer suñu soutien au président Amadou Ba mu ngi tudd renaissance sociale pour l'émergence képp ku dégg RSE nag di nga jàpp responsabilité sociétale de l'entreprise exactement waaye dafa nekk ay turandoo comme ay homonyme ni ñu koy waxee waaye bii nag moom li ko tax a jug dañoo ne ñun dañuy dekkilaat le social parce que seetlu nañ ne social bi xaw na sooxe. léegi ci wàll boobu ñun ñu ngi juddu le 11 septembre 2023 juste après ba président Macky Sall tabbee Amadou Ba def ko candidat la coalition benn Bokk Yaakaar ñu toog ñu waxtaan ñun lu si ëpp nag mosuñu politique c'est la première fois. ay groupe de xarit la à la base mais dem nañ nag ba mbir bi yaatu na bu baax a baax. groupe de xarit à la base. waaw à la base c'est-à-dire que c'est des amis. Mm-hmm. yoo xam ne dañoo toog jàngat situation réew mi ñu ne fi réew mi toll ñu toog jàpp suñu ñaambur nekk suñu liggéey euh, ndax dafa am benn boroom xam-xam bu mat bu ne mu ne chaque génération chaque génération doit dans dans une situation. Euh, dans une opacité faire face faire face à sa destinée c'est-à-dire affaire bi lan la mooy ñun jamono ji ñu toll ba ba ba ñu ba ñu defee le choix jamono bi ñu toll ak ni réew jaxasoo ak fi àdduna toll ñun dañoo ne waruñu toog di seetaan léegi lenn moo am mooy choisir pour dimbali suñu réew wala toog jàpp suñu ñàmbur ñu jàpp ne le président Amadou Ba c'est le bon choix ñu ne 4000 dañ koy jàppale ci élection yi jëm. fan ngeen sukkandiku. Mhm. pour ne Amadou Ba c'est le bon choix. waaw loolu moom dina neex a tontu ndaxte buñ ne président de la république dafa nekk loo xam ne parcours la jaar-jaar la ñu xool président Amadou Ba fan la jaar yàlla def ne diriger na impôt yu domaine def fay résultats yu mucc ayib. président Amadou Ba jugee fa nekk ministre de l' économie et des loo xam ne ci histoire bu Sénégal amul benn ministre de l' économie et des finances bu ko levé en 2014 groupe consultatif moo ngi levé milliards en 2018 il lève 6700 milliards soit un total de milliards bu ñu seetee bilan bi nga xam ne président Macky Sall jot na ko fi amal boo xam ne kenn naatable ko ci bilan boobu moom il a été le cœur cest à dafa nekk benn organe boo xam ne c'est invisible mais dafa dafa dafa nekk lu essentiel ci bilan boobu parce que dafa liggéey moom ak équipe am ñu dem outil ji ay fonds yu mun a liggéey loolu ñu xool ko jàngat ko xool fi situation bi toll gis ne que nit ku stable la ku am caracter am sang fois ñu ne kii kat ñun doy nañu mën na sëkk pour nekk njiitu réew ci loolu nag lañ ko tabee ne moom mooy nekk solution